daga golle giri daga golle amul toog ñu xoole baka sara demba baka sara demba man de bëggee naa donc Mbaye Dabo responsable cellule détection jambar waaw c'est bon li ci mën wax moy que le président Saïd Seck dafa bëgg indi beneen démarche détection jambar parce que dafa gis ne ni mu doon demee vraiment gis na ne du ni gën vraiment ñu def ci benn lël foofu à sali bi ñu ci waxtaanee Saly maintenant ci recommandation yi def ci bokk au niveau de chaque région léegi dañ fa indi benn cellule pourquoi cellule boobu parce que gis nañ ne fukki minute ak ñaar nga xool ci xale bi fois dafay am erreur parce que fois xale bi xale bi gën a ay di nga gis xale bi gën a ay xale bi ngay jël. Euh, duñ ko duñ ko jël ci direction parce que tout simplement temps bi ko may doyul waaw wala équipe bi mu bokkoon baaxul mais légui dañ né pour yokk chance xalé bi nañ ko gis lu bari gis ko lu bari moy lan moy que ci zone sélection régionale cellule régionale bi fa nek da koy xol defal len ay match seen biir donc buñ ko xolé ba mu doy leen ñu ko au niveau régional buñ ko xolaté foofu maintenant ci lañ koy door indi au niveau national bu boba nak jambar mën a door a décider ci xalé bi té mom li ci am solo moy que né fofu man na am erreur ba légui mais erreur yi dina gëna a que par rapport ak dañ ko doon défé bu ndëkk bu ko donc président Saer parce que fofu la ñuy saluer grandeur am parce que dem na ba xamné mi ngi jege mur bi mu né stop né sama gaay kay kaay leen parce que gis na anomalie té vraiment dimbul leen ma ngeen jox ma ay xalaat bu ñu mëna changer li ci ci liñ doon liggéey waaw té té là aussi vraiment ñun loolu mo ñu gëna neex ci mom parce que day koo xam ne bu gisee ne fi mu jëm baaxul donc amul amul amul grandeur donc di continuer ba dem di mbëkk mi donc dafay taxaw ne dama juum automatiquement rectifier après maintenant ñu dem en tout cas ci loolu lañ nekk bii mooy sunu huitième cellule bi ñu monté te vraiment yàlla defal nañ dem vraiment fépp fi ñu dem vraiment nit ñi comprendre nañ démarche bi accepté nañ ko te vraiment dinañ dinañ góorgóorlu aussi ba jàppale ñu ci programme boobu ñu nekk. délégation donc mon en tant que euh, responsable en tant que coordonnateur de la cellule de détection je suis aussi Abdou Gueye, mon aussi vice président la CONEPS avec euh, Jean Toupane mon aussi mi cellule cellule détection direction mag bi aussi secrétaire et aussi le directeur administratif adjoint de Djambar, Bertrand Da Silva donc moi aussi moo fi ñëw pour taxawal fi Saer Sec ci ci tourner bi ñuy nekk di def ni quoi. waaw parce que bon même toujours ci ci ci démarche Saer Seck mooy que ne gëm na ne jàmbaar mënul utiliser tous les meilleurs talents du Sénégal moi dafa bëgg ñun ñu rafetal suñu digënté ak yeneen structures yi def détection loolu lañ nekk di wax ak éducateurs yi bu génération foot ñëwee pour def détection dañ ko yaatalal bu defee détection mu ñibbi bu Dakar Sacré-Cœur ñëwee ñu jappalé ko mu def jambar bu ñëwee jappalé ko mu def parce que président Sall liko intéressé moy que le jeune sénégalais puisse euh, pratiquer le football dans les meilleures conditions possibles parce que li wax moy lan bu euh, génération foot jëriñ Sénégal ñëpp la jëriñ bu jaré Dakar Sacré-Cœur njëriñ Sénégal ñëpp la jëriñ bu jaré jambar aussi mom moko gënal jëriñ Sénégal ñëpp la jëriñ motax il nous demande à ce que ñun ñu rafetal suñu nekkin ak toutes ces structures là ba nga xamné xale bi kese moo ciy gaje waaw donc donc vraiment je pense que moom moom fofu la nek té té te parce que jambar mënul jël ñëpp c'est pas possible.